Rojo Media Vision. la nii moo laa policier ah, policier la fu ci koor bi. ah bon kon ci mooy policier bi o Diallo. di doomu baadoo la moom it. Eh, waxu kasaw kasaw la. <laughs> non Ali booba trahir na mafia. moo la rafetal ji waaye. di doomu baado la momit pap moom mi xarit 10000 problème ba parquet ba ne niñ ko tëj 1 an li nga tuddu pap Diallo ci affaire bi dafa bari ban l'affaire ça devient compliqué légui légui yow taxawal rek taxawal taxawal ma wo grand yu grand and together grand yu yow fi nga fi nga jenn mo affaire bi da diis parce que ñun ay anglais mom moom ñu ci lenn bàyyil ma wo moo la moo la kay kay kay kaay kaay mais histoire bi dafa graaw dafa rombu fofu nak képp lañ koy diw. ma président. dama bëgg nga généraliser la mesure wala nga arrêter mesure bi. déedéet. maa leen gën a bandi foofu. ñëw. daal mooy loolu l'affaire ça devient compliqué kan laa war a dugal tamit est-ce que duma dugal liir jaan bàyyil ma jéem a xool ak liir. asalaamaaleykum waa Amérique. am nañ problème. làq-làqal aw ma nëbbul nëbbul ragaluma fu ma jëm ñeme naa li may def. policier la. gars ñoo war a yeewu léegi. man daal Macky Sall yéem na ma. Macky ñu ko wër kenn xamu ci dara. affaire bi daal ça devient compliqué man tëddi ba suba parce que affaire bi moom su ma ci naree continuer te Macky Sall jàpp parce que da ngay waar ngay gars yi abonné. Nianthio Média Vision l'œil du delta du Saloum.